رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم الحمد لله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نيغي سانت يالا جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم دي نيو سيغ سيغ مولانا شيخ محمد ماي خليفه شيخ ابراهيم نصر رضي الله عنه ديكو نيان يالا وير غود فان دي نيو امام شيخ احمد تجان علي سيسي yalla yalla yàlla may ko wér yok fanam delloo soo ko ci mbolo mi di nuyu porte parole Cheikh mohammedul may Seyda Ali cité ma ngi nuyu khalifa tayba ñangen seigne bay Alaaji Ahmad bukar ñang khalifa tayba ñangen di nuyu ay keur Alaaji Omar job muy Cheikh Ibrahima job mi nga xamne tay mom la yalla tek ci bop njabor gi ñu koy nuyu diko ko diko siyaré bu baax di ñaan yàlla wér gudd fan yal yalla yàlla ko ci kanam njabor gi ñu nuyu bokk fi teew di sant yàlla ci jotaay bi alhamdulilah ñu dajee fi tey di fàttaliku ci góor gu màgg di wax di waacaayu bés bi nga xam ne ñu ngi ko koy parawaaral muy lakkatoos dimanche bii di ñëw incha allah ñu di ci oo mboole mbokk taalibe yi mboole mbokk jullit yi mbokk dëkkandoor yëpp <coughs> di ko defal nag góor goo xam ne kenn la ci muqaddami Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu muy suñ bàyyi di suñ sëriñ wasila alaaji Omar jóob ñii di ko wax alaaji Omar Diop miskin ah, moom nag kenn la ci muqaddami bàyyi ni ñu ko waxee léegi mi ngi juddoo dëkk bi ñuy wax Missirah Waalo ci gannaaw Njawara ah, jàng na alquran ci Mbitteen Abdou jàng na xam-xam ci dëkk bi ñuy wax Jaabi ci boori Kaffrine fii fa la jàngee xam-xam ak ci loxol Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ak ci loxol nijaayam alaaj mu Abdou Niang bi nga xam ne moo yaayam ñoo bokk ndey ak baay mu yar ko euh, jàng na ci moom xam-xam gannaaw bu mu ñibsee ba toog ci dëkk bi fii nekk na fi di jàngalekat bu mag daan jàngale ci mbooleem fànni xam-xam yi rawatina loxo boobu ñu wax léegi fii am nay jamono ci dëkk bi ku fi jàng daaliya du rëy du rëydu maqaamatul xariiri soxraawu jaaliya moom moo la ko jàngal kon loolu moo tax ñu ne ko Omar Diop luxa te loolu mooy fànn luxa yi ba ci fiq euh, yëpp daf ko daan jàngale ba ci bayaan ak sarfo yëpp daf ko daan jàngale waaye luxa bi liñ ko gën a siiwee kooku nag moom la ñu defal bis bi ci Medina fii ci dëkk sëriñam mu nekkoon taalibe bu bëggoon sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu anhu jeexoon tàkk ci moom bëgg mboolem ay mbokk jullitam bëgg mboolem ay mbokk taalibeem ba amati woon ci xej ak seen bés boobu nag bokk na ci ñiñ ko darajaalee suñ waajur suñ sëriñ Maolana Cheikh Ahmad Dam xalifa Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu suñ baay alxaaji roqi ñang doon xalifa teeba ña ngeen moom it nekkoon kollëreem ñu darajaale leen bés boobu di ci rendul hommage suñ mag Mouhamadou Moustapha mi fi bàyyi barki démb te nekkoon xalifaam yàlla na yàlla leeram may ko njëgalam ak suñ mag Babacar Diop nekkoon doom ci Alaaji Omar Diop moom ak suñ mag Mouhamed Sani Diop doon doom ci kër gi nekkoon taalibe góor gi dëkkoon Nasira nekkoon Awsa euh, nekk ci kër gi xidmaal ko ci lu nekk ñooñu ak suñ baay Alaaji Abdoulaye Mahmoud moo fi bàyyi ko bu yàggul moom it di suñ nijaay di suñ sëriñ moom ñu ngi ko ci rendre hommage di leen ci ñaanal yàlla ñoom ñëpp ñëpp ñu ngi leen di oo comme ni ñu ko ootee woon ci dëkk yi dalee ko ci Taïba Niangène dalee ko ci na baay gi ñu nekk Ndiobène Maat Lambaram so Kër Socé Kër ma Madiabel Mbaylaar Kucey foofu yëpp suñuy bokk ñu fa ay kóllëre góor gaa ngi fa suñuy bokk ci benn euh, suñuy bokk Mbaylaar suñuy bokk Ndiobène Waalo Taïba Niassène ñoom ñëpp caamin waalo ñu ngi leen oo ci bés boobu kaamil yi tàmbali nañ ko luy waaye man rek nga jàngale ñu ko oote ci numéro yi. 77 525 59 17 muy sama numéro man ñu ngi joxewaat beneen numéro 77 312 90 16 muy numéro suma jarbaat Alaaji Amat Seck ba tey ñu ngi joxe numéro xalifa bi képp koo ci xamante ne jokk nga moom ci lim boo am rek muy 77 496 07 81 kooku ci boo ci boo ci oote rek incha allah loo ñu joxe ci numéro ci ay lim danañ ko jël incha allah. wala kuy ñëw andiwaale li mi nga am loolu daal la ñëwoon ñu baaxantal ko ci ci kàddu yi ñu ngi jox suñu rakk euh, Thierno Hassan Dem mu wax euh, programme bi naka lay tëddee euh, buñ paree ñu jox xalifa bi mu sànni ci kàddu ñaanal mbooloo mi salaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila Eh, ginnaaw sant yalla julis si yonent sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñaan yermane yalla wacc ci khalifam Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi ñaan yermane yalla wacc ci sen khalifa ñom ñaar maulana Cheikh Ibrahim euh programme bi nak ni mi tëddee moy suñ xëyee ba julli fajar khalifa bi dana fa tew andak njabot gi tidji kaamil ñi commencé jang kamil buñ jangé kamil ba 9h 8h 9h 8h ñi kuma ñuy arrêté dem ndékk dem si ndékk yi muy xewlu yi buñ demee si xewlu yi ndékk yi suñ ndékkee ba pare ñu continuer si programme ba ñuy jàng alquran di jàng alquran ñuy jàng salatul fatiha di jàng salatul fatiha ñi man mën lixlaas di jàng lixlaas ñi ànd ak ñoom ba tusbaar jot bu tusbaar jotee ñi arrêté dem si añ muy deux heures deux heures demi incha allah suñ si paree nag ñu jublu si programme bi nga xamante ni moo dajale mbokk yi moo dajale mbooloo mi muy ziyaara bi nga xamante ni moom lañ koy defal ànd ak kaamil yi muy tus dalee si tusbaar jëm ba timis mu am waxtaan wu am solo wuñ fay def woo xamante ni ki kay def muy sun nijaay di ustaas di borom xam-xam bu ñëpp xam ku ñu ràññee si faydu bi di doom ci góor gi di sët di jarbaat ci góor gi muy kan ustaas Babacar Cheikh Omar Roqi alaaj ma Abdou Ñang muy waxtaanee kan muy waxtaanee jaar-jaaru góor gi ak wayam ak xam-xamam bis bob waxtaan wowo nak mi ngi déparé 16 h jëm 17 h am motel alquran yu fay am ñaari sëtu Alaaji Umar job danañ fa motel alquran buñ démé ba takusan jot inshallah rabbi Cheikh mohammedul Mahi Seydi Ali Cissé dana tew jangal ñi xatmu bi suñ paré ñu dugg ci ñu jox khalifa bi nga xamanteni mom mo moo dajale mbooloo mi mu waxtaan ñaanal mbolo mi ñu tassaro ba loolu mooy mbokk mooy oote bi nga xamante ni ñu ngi leen si oo yéen ñëpp mbokki Amérique sin mag ay daane fi Jóob suñ mag Cheikh Omar Ngebaan waa Ghana suñ mag nay fi Jóob waa Maroc suñ mag Assane Jóob dameet waa waa Dakar suñ di jiitalu Baye Ndiaye euh, wàcc jëm Sénégal jëm Saalum dëkk yi fa nekk yëpp ñu ngi leen oo si programme bi di leen ko yëgal di sàkku seen teewaay di ñaan yàlla nañ ñëw ak jàmm delloo jàmm te bisab bis bu am solo la bisab faju aajo la képp ku ci teew ñu ngi yàlla yàlla fajal la sa aajo ñu dellu si jàmm loolu mooy ote bi si ndigalu si xalifa si Ibrahim Diop aouzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim ñu ngi sant yàlla julli si yonent bi salallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yarmande wàcc si Cheikh Tidiane ak xalif seen xalifa ñoom ñaar mi Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ñu ngi ote li nga xam ne moom mooy ziar alxaaji Omar Diop di wax ci kaddu li nga xam ne moom mooy ay sëtam yëpp li ko déggee ci ki mat ci sët yi ba ci ki gën ci sët yi yonent bi dañoo wax ne bu nit deeyee léppam dafay taxaw ba mu des ñett kon ñun dañoo dajee ngir oote jàng kaamil di ko ñaanal suñu waajur bu góor muy alxaaji Omar di ci oo waa mbokku Medina Baye bàyyiwuñ kenn nag waa Sam waa Gaawaan waa Kasnack waa Casaville ñu nga oo Dakar yëpp ñu nga oo waa Mabo ñu nga oo waa Ngebaneen ñu nga oo waa ñu ngi oo waa Espagne euh, di ñaan yàlla yàlla àggal ñu ci bis bi ci jàmm dimanche la incha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla mu àggale ñu ci bis bi ci jàmm yàlla def tawfeex ci bis bi lépp loo xam ne aju na ci bis bi rek yàlla yombal ko bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum yéen samay mbokk jullit samay mbokk jigéen samay mbokk taalibe samay mbokk ci yàlla samay mbokk ci àndoog yàlla maa ngi ziare ñëpp di sant ñëpp di nuyu ñëpp di jiital ci nuyo bi euh, suñu xalifa Seyda Ndey euh, di nuyu ci topp seydaa Sata maa ngi nuyu sama mbokk jigéen yëpp di leen yëgal ci oote bi leen ci oo sama mbokk jigéen yi euh, sama mag yi ak sama rakk yi nekk ci bitim réew ak sama am di jàmm yi ak sama xarit yi maa ngi leen di oo ci bés bu tedd bi muy ziyaara euh, Mawlana Alhaji Omar Diop di ñaan yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem euh, ñoo ngi dën ba dënmal bés bi ñoo ngi ñaan yàlla euh, commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ci oo ñëpp di ci eh, jiital ci nuyoo suñ xalifa tamit bu ji eh, bu góor Cheikh Ibrahim Diop eh, gannaaw bu ma tuddee suñ xalifa Ndey Diop maa ngi ci oo samay mag Seyda Yaay Baay Dakar Seyda Astou Ndiaye Dakar maa ngi oo Seyda na Diop Ghana maa ngi ci oo Seyda Nafi Diop Amérique maa ngi ci oo waa Kaarang suñu mbokk yi suñu doomi bàjjen yi suñu doomi nijaay fépp fu waay mën a nekk ñu ngi lay oo ci bés bi di wax ne bés bi bésu xéewal la bésu xéewlu la bésu ñaan yàlla la bésu tedd la bésu tere la la. maa ngi oo ñëpp fàttewuma kenn oo naa ci ñëpp samay mbokk yi ñëpp laa oo fàttewuma kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah mbokk yi. ñu ngi leen di nuyu di leen sant di gërëm di am mbégte bu baax a baax a baax ci daje bi ñu daje eh, di dafal suñu waajur suñu sëriñ siyaare mu Seex Alaaji Omar Diop ci ndigalal suñuy mag ku mel ni Seyda Ndey Diop Alaaji jóob ñu gën ko xam ci Alaaji Xadi ak suñu mag Mbaara Touré ak suñu mag Imam Mouhamadou sise ak Baye Ndiaye ak Maam Sakho ñi ngi am mbekté ñi ngi am contenté ñi ngi o ñëpp ah eh, ci xew-xew bi nga xamné ne Alaaji job lañ koy defal ah wax deug yalla ko xamné ne ku atanon ci sonu ci nit ñi la ku mënon a dimbalante ak nit ñi la ku eh, amoon kóllëre ak nit ñi ah ñi ngi ci o ñëpp wa Mirna ñi ngi o ñëpp liko dalé dalee ci xalifa beeg ñëpp dal ñi ngi leen o ci bës bi ñi ngi am mbekté am ko contenté bu baaxa baaxa baax